mu ngoog mbokk mi moo ngi noonu yow mi siifur Baye Birame 2 TV bul fàtte abonné nga laal cloche boobu mu activé bi xam ne mooy tax bépp vidéo buñ dugal nga mën koy jot bul fàtte commentaire partage incha allah moo ñu may doon. ci nuyoo bi ki nga xam ne kii mooy borom jotaay bi mooy suñu kilifa suñu mag alaaji alaaji Malick Cissé di suma siyaare. ci way juróom wu tedd wa di suma turandoor bay daam ak kilifa gi nga xam ne génne moom la fi bàyyee woon yéen bi muy alaaji Aliou Sotou da koy ngeen baal ñoo may Serigne Thierno Abdoulaye Diallo mu jàll si fii alaay motu may mu ñëw dend ak Serigne bisimilah Thierno Afi mën naa mën naa dikk fi dend ak

alaji Malick ak njaboot gi yëpp pour ñu jébbalal ma ko siyaare boo xam ne bii nii maa ngi ci sàkku ngërëmal yàlla ak da ci sàkku itam njegal da ko sàkku suma bopp da ko sàkkoon njaboot gi yëpp itam maa ngi nuyu kilifa yi nga xam ne yéen ñoo fi teew yëpp te ñëpp kenn ku ne fa nga nekk lu rëy nga fa ci diine ji te loola dis na lool waaye teewul bàyyi ko ñëw fekki jotaay bi maa ngi nuyu itam ñi nga xam ne ñii nii teew nañ ci bi teewal teewal fi nguur gi da jaale xew-xew yi nga xam ne yéen nii moo xew dañaan ñaan borom bi tabaaraka wa taala lu ni loolu borom bi tabaaraka wa taala gëjale ko ci réew mi te itam yàlla bokk ci natt yi nga xam ne yéen nii jàmm rek lay bi indi gannaaw ga jotaay bi la yàgg nañ ko fiy def dafi daje dafi jàng ay kaamil yoo xam ne yéen yu bëri la de ko def ngir dekkal lii nga xam ne mooy téereb yàlla bu tedd bi muy alquran de ko def ngir dekkal li nga xam ne li mooy yoon wi nga xam ne moom la fi bay daam rëddoon te mooy jàng alxuraan jàngale ko ba muy dund danaan takkoo jàng alxuraan ci weer yi yëpp waaye bu demee ba weeru koor ñëw nag lam daan jàng ci alxuraan da ko daan yokk bu demee ba nga xamee ne mu nga tëñ jàngama bu boobaa la ko mbooloo mi door a yëg waaye fekk moom yokk nañ jàngam yokk yokkuloon na ko njaboot bi itam ci alxuraan ba gis ne alxuraan géej la goo xam ne génne boo ci màndee da war a tànqal keneen kooko naan booba la song weeru jot mu am ci ajuma joo xam ne jéene dafay dajale nit ñi ñu soli ñoom ñooy ñëw ci ajuma jooju ci benn ajuma ci weer wi ñi jegeñ ñoom dañ koo dëkkee ak moom ci kër gi mu tax koo jàng alxuraan bu yàlla may ko ci ay yoo xam ne yii ne lu néew a néew a néew la lu lu ko nit ay am yàlla demoon na moom bay daam demoon na ci njàngam alxuraan ba waxtu mu ne moom njàng bu jàngul itam dafay dégg am njàng waaw takkoo na ci làmmiñam jàng alquran ba noppam takkoo dégg njàng xaw ndax xam ngeen leen waxam déet bay da dafa takkoo woon jàng alquran takkoo jàng alquran ba mujj gi léegi bu jàngulee dafay toog ci néegam da jàng da da dégg ñuy jàng alquran dafa takkoo jàng alquran dafa takkoo jàng alquran ba bu noppee day dégg ñuy jàng alquran loolu ci liñ jàng ñun ci bariwul waaye liñ jàng ñun ñi ko ki ko ci ñaareel mooy sëriñ bi ñuy wax Mayloot Faal dafa toog ko woon salaatul faatihi ba noppee dafay dégg jàng salaatul faatihi maqaam boobu Mayloot Faal dundoon toog ko woon ba bu noppee di dégg salaatul yi bu ñuy jàng maqaam boobu bay daam àggoon na ci alxuraan toog koo jàng alxuraan ba bu noppee dafay dégg alxuraan bi ñuy jàng sëriñ As dajale ko lam daan dégg ak nam ko daan déggee mu taalif ko ci ab téere téere bi mu ngi ci loxo sañ aas muy téere bu tumaraanke nag loole nag ci la gis njëriñ njëriñ loole mu yaatal ko pour bëgg at bu jot mu naan ko def weer bu jot ñu dajee fi ba demee ba ci jamono yàlla ji Aliou Satou mu gis ne lii ñi jegeñ de dajee te ñu organiser ko def ko loo xam ne léegi ñi sori ñëpp dañ ñëw man koy fekkee su boobaa nag par weer da ciy a jegeñ ñu def ko muy at ñii fi dajee at mii buñ fi dajee jàng fi ay kaamil dañ ko tàmbalee yees lim bi lool ci nopp ndeketoo mbooloo mi mën nañu jàng lu ko ëpp muy ñett téeméer ak fukk ak ñett ñett téeméer ak fukk ak ñett ci kaamil tur bu rëy la yaakaaroon nañ ne sax lu jombe la waaye biñ demee ba nga xamee ne bii nii mbir nañu ko incha allah bu gaa ki am na ñi wax suma kanam dañ leen wax lim bi nga xamne bi ni mom lañ ko jang ci alquran. alquran.